ñele di magal yëkëti xasiida ya wala fal di tag say xibamba bay faali saxo ci saxoo si kartulu yàlla ñee feetewoo bernde ya ngir ku fay gan ñu ber la bernde la bernde nak ci la mbolem xéti palaa yëpp am na fa lu waay suwaa siir loo sëxal xërit ba fa café Touba Douté am na nes café xew café ak meew mba meewum kese mburum fariñ mburum baguette mbaa tapalapa mat len pain wala kek yay suwaa siir laaxu laaxu sow am na na tëri ceebu nga teg ceebu ganaar yaay suwaasiil am na miswi am na tufe am na it salaat weer misel petit pois cere yaay suwaasiil am na xëti am na koppin am na ay naat dañ koy saaf tegal gan ñi ñuy suwaasiil yàlla yàlla dama ñëpp jàmm barkal màggal